Hula. সব tabaarakallaahu góor gaa ngi nii toog bu parole amee moom moo koy joxe ku mu jox kàddu rek am na kàddu waaye man daal damaa bëgg ñu dimbali ma rek ma male foofu sama kàddu de am naa nag mu laaxasa boo xam ne moom bu ma ko noppiwaalee ba ñibbi du baax mooy alxuraan ji moom ay léwén neex na xam nga léeg-léeg damay faral di kii ci nit ñi ñu ni euh, jàng leen faatiha bu sell mani ni faatiha bu sell ëpp naa jàng faatiha sell na bu yàgg jàng leen ko njàngin mu sell. waaye faatiha moom sell na bu yàgg. gis nga alxuraan dafa dañ koo fekk mu neex yow kay yaay naqari yow mi koy wax waaye moom neex na ba pare kon alxuraan ji neex na jub na sëriñ bi yal na yàlla def ci alxuraan ji barke lii daal man daal lii ma dégg fii ci alxuraan ay la yewen kuy dem ci conférence yi la sëñ daam lu ay njabootam yi muy yiy tari alxuraan ak dongoom yi ñu ci bari téyel naa leen ñu ci bari keroog ba ñuy tari tabaarakallaahu maa nga fa ba tey jóguma ca daara ja te incha allah fa jóg ndax samay doom moo wattoo nañ fa alxuraan waaye daal alxuraan gi neex na de jaar na yoon yal na sax dak yal na sax dak ilaa yawmil xiyaama loolu daal mënuma koo yóbbaale. mbokki jullit ñi gannaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci nuyu lislaam ca mooy asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ji jël nuyoo boobu teg ko ci loxol suñu kilifa suñu baay suñu waaju suñu sëriñ euh, mu mel ni kàddu gi dañ ñu koo jox rek suñ gàntal waaye ñun amul woon kàddu ndax ñun ci kër gi lan bokk doom lan taalibe lan ci kër gi te li ñu boole mooy alquran euh, kon nag li nga xam ne moo ñu lënkale mooy alquran di wax suñu borom kon loolu ñun suñu fi ñëwee dégg fi alquran ju nii suñu xol dafa sedd lool ñu bég ci lool sëñ taala dafa baax rek di am ay kàddu yoo xam ne mu ngi ko ak i seede di ko wax ci sëriñ bi ak njabootu sëriñ bi waaye mën naa ne li muy wax lépp ba muy ñëw daf koo indaale muy njàng ma muy yarba muy teggin ya yooyu yëpp Talla ba muy ñëw daf ko faa indaale. kon sëriñ taala waa Daara Aïnoul Madine Diarra ñoom ñëpp ñu ngi lay nuyu euh, ñoom ñëpp a bëggoon a ñëw ndax loolu yow yaa ko def yaa ko ji ca Daara ja kon daal ci gàttal comme xaw naa naaj sëriñ bi ñun san njaboot lan bokk ñu ngi lay tàllal loxo xele lan waaye gannaaw yàlla suñu waajur tey Daara ja avant muy génn àdduna ñetti at la jël Daara ja teg ko suñu loxo. keroog ci jour conférence bi bi mu waxee na jël naa daara ji teg ko ci loxol mbay ñang ñëpp dañoo ub seen gémmiñ na xele bu toll nii ñu jël daara ju toll nii teg ko ci loxoom njaboot gu toll nii waaye booba lam doon def moom xam na ko waaye ñun booba xamuñ ko woon ñun nag ay xelalan ñu ngi tàllal suñu loxo di leen ñaan ngeen ñaanal ñu yàlla yéen boobu nga xam ne sëriñ bi yenoon nañu ko suñu borom subhanahu wa taala teel ñu ko amuñu benn bëgg-bëgg amuñu benn soxla lu du jàngal alquran ak di ko jàngale kon nag sëriñ bi loolu rek la ñuy sàkku ci yow di la wax ne sa njaboot lan bokk sëriñ daara yi nga xam ne ñoo fi nekk nga xam ne tey lan ma sa gisante ak ñoom ñu ngi fasante ak yéen kóllëre bu baax a baax wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu